bien ñaari option yu mu wax la moo tax xel munu ko dégg parce que paasan sànq mu ngi mais nanguwul déglu sama laaj bi lu am la lu amuloo buñ ko naree dingit loo fay teg. wax dëgg yàlla parce que lii dafa ñaaw ci déggin ak ci gisin ci Sénégal parce que wax dëgg yàlla euh, xëy na bu ko paasan defoon euh, gars yi mën nañ taxaw way du fëgg ay bool nangam nangam mais kii Sénégal daf koo deselul dara. booy remonté ba trente ans en tant que agent Petrosen directeur directeur général ministre premier ministre président assemblée nationale ba tey président de la république du Sénégal war nañoo bàyyee nii ba di ko waxee ci benn anam bi sax du bëgguma sax mu fekk ma fi mel ni dafa sànni Sénégal quoi dafa ñaaw alors tey euh, bu dee rek euh, fii Abbas ak Paasan waxee ku ne mën na ko comprendre. ku ne mën na comprendre seen frustration parce que loolu lii mooy impasse dëgg euh, cest à man xamuma ci àdduna bi fan la situation juridique bu mës nii am. mais li ngay wax nii war na mën a ëlëm ku mel ni Sidiki Kaba maître Sidiki la ñu wax ku xam yoon. défenseur des droits de l'homme situation bi musul am. mais di bi musul am. option yii la am. <coughs> jarul jàng bu rëy situation bi mësul am kay musul am nag yow it texte rek la ko di. parce que bu tawee ba le 2 avril. nekkatul président te démissionné wul. balaa ngaa démissionné am mission. ku nekk en mission moom mooy démissionné. oui moom wax na ne sa mission s'arrête le 2 kon mënul démissionné parce que amatul mission. Hmm. il n'est pas définitivement euh, empêché on n'est pas en cas de décès ñetti cas yooyu noonu moom mooy andi. vacance de pouvoir ban la ci ñetti benn. léegi bu dee jotee demaguñ ci élection. nekkul président lan mooy doon statut am. ñu statut pas sax. conseil constitutionnel jël décision. nekkatul président nekkatul <coughs> président nee na moom sa mission s'arrête la baax moom ci boppam nee na de sa décision est ferme après day bàyyi wala bu bàyyee naka la ñuy def parce que nee naa ñetti anam yii bu bàyyee xam nañ ni muy def waaw président assemblée nationale mooy ñëw. mais anam bii bu bàyyee lii benn texte réglé wu ko parce que ah. situation bi mësut am te warul woon mën a am déedéet xam nga balaa nga ne ci loxo diw la nekk ah, xoolal laaj damay laaj waaw ma ne balaa ton damay tontu ci laaj bi balaa nga ne ci loxo diw la nekk mhm. situation boobu texte réglé ko pour texte moo koy teg ci loxo diw mais situation bi amul texte bu ko réglé benn texte réglé wul parce que lii kenn warul xalaat ne war na mën a nekk ci réew mandat wu président bi jeex te organiser wuñ élection lii kenn warul xam kenn cest à situation bi texte mënu ko lijjanti parce que da nga naan réew warul mel nii lii warul mën a am ci réew. waruñu ci àgg. kon seen li li li gars yi doon wax yegsi na Sénégal du réew <laughs> yegsi na quoi alors léegi ñu ne dañuy yóbbu ci conseil constitutionnel loolu xel bu sell rek si di kii tegul lu ci benn texte xel bu sell la rek. ah président Macky Sall moo ne tey bu jotee rapport. waaw ah. dialogue le 4. Mhm. après moom dina tànn date. waa wax ak waa conseil concerné. waaw euh, ma ne. loolu da koy ci teg xel bu sell nga koy teg mais mënoo ko teg ci texte parce que situation bi texte li jëntiwu ko. Mm. léegi conseil constitutionnel tamit moom it buy jëf décision ci texte lay basé wu bu naree basé wu ci texte mënul jël décision moom it xel bu sellam rek la mën a demee soit mu ne ko toogal <coughs> en application de l' article 36 te 36 boobu noonu moom nee bañ naw ko parce que moom nee toogul. et que nee na sa décision est ferme toogul léegi nag euh, ban article ngay wooyu ci 39. Hmm. muy président assemblée nationale. ñu jox ko délai mais boobu it li si di ki wax droit la nag. mooy reprendre à zéro le processus. Ah. waaw kii nii nag xam nga moom dafa ne ñaanu yàlla loolu fekk ko si lu muy ragal ci loolu bu bu loolu ah, amoon. hypothèse ñëpp mën nañ cee ragal lu nekk. parce que déjà koo xamante ne euh, élection wu assemblée. pour nga mën koo réussir foog gendarmerie ñëw. nga bëgg ko jox élection wu réew. <laughs> non non non non non euh, bàyyi rek di ñuy wax seen xalaat xam nga. élection euh, président assemblée nationale bureau assemblée pour nga fal ko rek yow foog gendarmerie ñëw ñu war na jox élection wu réew mi sans aucune once de légitimité parce que nee naa la yow faloo ko. Aram falu ko Paasan falu ko. benn sénégalais falu ko pour mu nekk président pour mu nekk député sax benn département ñoo ko fal parce que n'oublie pas qu'il est issu de la liste départementale de Dagana. oui on est d'accord mais si donc aucune once de légitimité. oui bien sûr aucune waaw defal nank rek paas Ousmane maa ngi ñëw maa ngi ñëw maa ngi ñëw maa ngi ñëw maa ngi ñëw maa ngi ñëw ce n'est pas prévu par la constitution bul wax loolu. en cas de vacances. mais vacances ban wax ma wan vacance la. démission la démission la. vacances yi dañ koo tënk. vacances yi dañ la wax yan mooy vacances. dañ ne la vacance démission la war a doon empêchement définitif wala décès loolooy vacance et le conseil constitutionnel constate <coughs> la vacance du pouvoir on n'est pas dans cette situation. moo tax ma ne la déedéet boo non c'est pas prévu. bàyyil ma wax la rek bu baax. est-ce que xam nga li bu baax a baax. xam nga lan xam naa li ngay wax nekk ci cas bi. déglu ma dama demee bay invoqué. que ni le président de l' assemblée nationale am na ci ay dispositions bu ñu ci yeggee mën na doon. président par intérim mënul doon mënul doon. laa ne na ko doon lan lay doon kon. parce que fi mu ko mënee doon dañ koo tënk. te nekkul ci loolu ma ma ma doon on parle de cette situation ou tu parles de tu es dans le ciel bàyyi ma wax. ba tey yaa ma déggul de. waaw lu tax ma lay dégg moom man bu baax a baax man. xool wallaay dégg naa la. waaw waaw man man man samay wax laa dama ne. waxal ci situation bu président assemblée waroo euh, nekkuñ ci situation. c'est pas l'information waaw bàyyi ma rek ngir yàlla. yoon may na ko xam nga nangam naa ne yoon may na ko. ci yeneen anam la ko ko may maa pas bii. voilà. man waxuma ne bii. waaw léegi kon loo may waxee ñu ma waxul. yow ñu ngi wax ci bii nga bëgg ma génne ci beneen. Pape Ousmane yaa mën a sonal nit nag. ci bii la ñuy wax nañ yem ci bii. bii nii moom ci cee nekk. léegi nag buñ ko àndee moom moom buñ ko andee dañ koo andi en toute illégalité mais ci xel bu sell lañ koy teg parce que nekk nañ ci impasse léegi boo ko andee nag foog ñu wax la conséquence su andi wi. Mhm. mooy processus bi day reprendre à zéro. Mhm. parce que effectivement il n'y a plus de théorie de droit acquis. Mhm. parce que li nu acquis li nu li nu euh, ce qui ak ce mais léegi nekkatul donc on est dans une autre situation kon donc on reprend le processus à zéro ñu demaat parrainage déposer waat candidat et cetera loolu mooy droit alors léegi nag foofu moom dañ ko tënk. Ah. parce que loolu moom moo indi effacement wala écarter euh, la théorie du droit acquis parce que dafa am anam yoo xamante maanaam du doon président comme moom nii déjà mënul appliquer article euh, quarante et un mënul appliquer article cinquante et un <coughs> mënul appliquer article cinquante deux mënul appliquer article quatre vingt six mënul appliquer article quatre vingt sept mënul appliquer article donc il ne gère que les affaires courantes parce que euh, article cinquante mooy nommé premier ministre gouvernement ak mën ko euh, dégommer mënul loolu donc day ñëw te doo mënal dara premier ministre bi. Hmm. article cinquante deux xam ngeen ko. vous vous tuuti balaa ngay hmm. sori. Hmm. mission président nan la mën a jeexee te mission équipe gouvernementale bi du jeex wala. loolu la moo tax ma ne ci procédure bu spéciale lay organiser élection bi ci procédure bu spéciale lay organiser élection bi c'est-à-dire président la bu dul am gouvernement daanaka. waaye <laughs> moo am gën kaa bëri ñetti weer. waa gën kaa bëri <laughs> gën kaa bëri léegi euh, bon euh, article quatre vingt six quatre vingt sept yooyu moom mooy les moyens d' action réciproque motion de censure question de confiance droit de dissolution. Hmm. moom du mënal dara assemblée. parce que bul fàtte na fa la jóge moom bul fàtte na fa la jóge te moom it est ce que pare na. pare na moom maam Boy maam Diop. ndax pare na waaw bu parewul nag. ah déet bu parewul déet par mu ñëw waaw waaw day am mën na constitution rek la waaw mais dama ne bu ko situation dabee joxuñu ko joxuñu ko le choix tey lan ku ci maanaam ci ordre de présidence kan moo ci tegu bu dee Abdou Mbow moo ci tegu Abdou Mbow mooy doon sa président ah loolu dul waxtaan bi mais non non non non waxtaan bi ay hypothèse la rek ay hypothèse la rek mais fi mu toll nii benn seconde rek benn seconde bàlleen benn seconde

le conseil constitutionnel vous a fait l'onction de proposer une date ci échéancier bi mais nom de Dieu vous n'avez pas besoin de dépasser le 2 pour nous proposer une date. mais est-ce que yaakaaroon est-ce que le 2 passation de pouvoir bi xëy na dafa njort ni. am na ku bëggul jox am na ku a defaral. waaw non a qui parlent de ça mais mais c'est-à-dire aujourd'hui le vrai débat pas Moussa. Mhm. la chose qu'on doit dire au président Macky en cœur et à cœur que tout le monde doit lui dire. monsieur le président jox ñu date ci biir mois de mars bi ñu élection dem bu fekkee mënu ko nag mu wax nu ko li ma léegi ci tweetam bi ci suuf quoi mooy ne am nañ consensus ci date mais amuñu consensus ci sa présence d'après le deux parce que moom dafa tweeté mu ne gars yi d'accord d'accord nañ ci bii mais deux cent personnes ñooy décider suñu avenir à Diamniadio comme ça bêtement voilà sur le dos du texte si waxtaan ba moom leeral na ni fii du fii la ñuy jëlee dogal que lépp après. léegi léegi donc kon am raison. ñaari terme de référence la ñaari commission la. benn commission bi joxe na le euh, deux juin. commission bi lu mu joxe. lan moo tax moom. beneen commission bi aussi. nee na ko na toog waaw. léegi lan moo tax moom ci tweetam premier bi jox na leen raison félicité leen mais deuxième bi waxu ci dara. non non non conseil day joxe avis ci date bi. fële laa jëm moo tax. interprétation bi mais ci tweetam bi il a été ferme. dit fële laa jëm. waaw mooy ni. conseil conseil moo war a jël dara option day dem. yaa ngi naan sànq Pao Ousmane yi pose des bonnes questions conseil conseil moo war a joxe date même bu dee si c'est même si c'est un avis non on a sinon ils sont joxe date sinon ils sont complices. xam non fii dama ne dañuy toog fii ci table yi naan ay président moo war a def lii mais président moom la fal président moom la fal est-ce que président bëgg na réew mi wala bëggul réew mi mais ñun ku nekk xam nga sa